anqulu lakum fil xitaami maa ngi ji wax di indi lu ma leen di toxalal mu nekk du'a al wazifati ñaanu ñaan la goo xam ne ansha'ahu cheikhul islaami wa saadatul anaami abul faydir tijaani yi alaaji ibrahima abdullahi ñes anhuma ñaan gii ñu leen di indil ci mottali téere bi ñaan la goo xam cheikhul islaam texeeg mbindeef yi di ki nga xam ne moo sos faydatu tijaaniya di alaaji ibrahima abdallahi ñees dëkk kawlax radiallahu anhuma moom ak baayam yal na leen yàlla may ngërmandeem moo indi ñaan gi moo def ñaan gi wa huwa duaun chamilun mubarakun ñaan la goo xam ne làmboo na lépp lu doom aadama di soxlawoo ci boromam bi di ko ko ñaan mubaarakun ñaan la gu barke itam nag ndax ñaan gi dafa ëmb ñaani alquran ci biiram ak ñaani yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci biiram bu ngeen jàngee ñaanu wasifa ñaani alquran yee ci daje ak ñaani yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaye mu ràbb ko nag ci dégginam bam mu dégg yàlla ci xam-gam xam yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon ñaan gu làmboo la luy ñaan waaye ñaan gu barke la itam maa taraka fiihi moom Cheikh Ibrahima Niass bàyyiwul ci ñaan gii min xayri dunya min xayri dunia wal axira illa talabahu amul benn yiwu àddina ak yiwu alaxira bu Cheikh Ibrahima Niass bàyyi ci bii ñaan lépp la ci ñaan waaye nag wala min charri dunia wal axira illa istadfaahu wastaada minhu amul itam benn ay bu àddina ak ayu alaxira lu dul Mawlaana Cheikh Ibrahima dàqulu na ko te muslu na yàlla ca ay woowa itam ci ñaan bi taqabalallahu minna jamian yal nañu yàlla nangul ñun ñëpp lépp luñ ko ñaan ak fuñ ko ko ñaanee nuñ ko ko ñaanee lañ xam ci yiw di ko ñoddi di ko tudd loola lépp ak lañ xamul te bari lool ci tey ak ëllëg àddina ak àllaxira yàlla mi ko am yal nañu ko may ci mbaaxam gi ci darajaay ki nga xam ne bu ñaanee ci darajaam mu nangul ñu liñ xam ci ay ay di ko muslu ak lañ xamul te mu bari lool yàlla mi ko xam te mën caa musal ay jaamam ñoo koy ñaan mu musal ñu ci ci tey ak ëllëg àddina ak la ca feeñ la ca nëbb ci darajaay ki nga xam ne buñ ñaanee ci darajaam mu nangul ñu taqabal allahu minna jamian bi barakatihi ci barket Mawlana Cheikh Ibrahima Niass te bu ñu waxee barket Cheikh Ibrahima Niass rek barket Cheikh Ahmed Tidiane daf cay dugg te bu ñu waxee barket Cheikh Ibrahima Niass barket Cheikh Ahmed Tidiane rek lay tekki barke bi yonent yàlla Muhammad rekk la nag sallallahu alayhi wa sallam ndax moom rek am barke amin yàlla ñu yàlla nangul wa hada ñaan gii ñu wax nag nii la tëddee lii mooy ñaan gi du'aul wazifati ñaanug wazifa lañ koy tuddee ñaan la goo xam ne nag fu nekk la dëkk waxtu wu nekk la ko jaam bi mën a ñaan waaye nag ba tey danañ ko tuddee ñaanu wasifa ndax ku ko def gannaaw wasifa def nga ñaan goo xam ne ñaan féetewu ko kaw waaye bu kenn foog ne gannaaw wasifa rek lañ ko war a ñaan fu waaye soobee bëgg a ñaan lu mu bëgg rek na ko ñaan foofa baax na ñaan gi dëkk na fa kon nag amiin ca fu ngeen ko ñaanee am ngeen ci ndigal ci waxtu wu nekk ñaan gi nii la allahumma ñu tudd ko ba pare ci arab bi ndax ku bëgg a toppaat na ko daan mokkalee boo ci bàyyi woon ay maska nga xam ni mas yi nii la tëdde suñ ca jógee nag ñu indiwaat ay baatam ca lañ ci dégg ci wolof bi nga xam ne moom lañuy diggante ci suñu biir ndax di ñaan xam la ngay ñaan la muy tekki dana la may nga teewlu kiy borom bu woomal bu bari leen bi wax ne ñaan ma ak sa lot ak sa xeebu yow jaam bi war a ñaan borom bi allahumma anta al awalu fa laysa qablaka shay'un wa anta al axiru fa laysa baadaka shay'un wa anta zahiru fa laysa fawqaka shay'un wa anta al batinu fa laysa doonaka shay'un fa kun lana ya awalu ya axiru ya zahiru ya batinu waliyan wa nasiran anta mawlana fa ni'ma al mawla wa ni'ma nasiru allahuma inna nasaluka bi fatihiyati alfatihi fatha taam wa bi xaatimiyati alxaatimi husna alxitaami allahuma inna nasaluka alxayra kullahu aajilahu wa aajilahu ma allimna minhu wa ma lam naclam wa naudu bika min alcharri kullihi aajilihi wa aajilihi ma allimna minhu wa ma lam naclam allahuma inna nasaluka aljannata wa ma qaraba ilayha min qawlin wa amalin wa naudu bika min annaari wa ma qaraba ilayha min qawlin wa amalin allahuma inna nasaluka alafwa walafiyata walmucaafata addaa'ima fi ddiini waddunya walaxira allahumma inna nasaluka ridaaka wa rida nabiyika sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallama wa rida al ashyaaxi waridal walidayni allahumma ijal ma nuxibu fi ma tuxibu wa tarda allahumma ijal fi ixtiyaarika ixtiyaarana wala tajal ila ilayka ittiraarana ya rabbana ya xaaliqa alcawaalimi xul baynana wa bayna kulli zaalimi wajzi li kulli man ilayna axsana wa jaazi anna jazaa al axsana allahumma irfa anna aljahda waljuuca walcurya wakshif ana min albalaa'i maa laa yakshifu gayruk allahumma farij an ummati sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam rabbana aatina fi dunya xasanatan wa fi alaaxirati xasanatan wa qina azaaba annaar rabbana laa tuaaxisna in nasiina aw axtaxna rabbana wala taxmil alayna isran kama xamaltahu ala alladina min qablina rabbana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 wa in lam taxfir lana wa tarxamna lanakunanna min alxaasirin rabbana atina min ladunka raxmatan wa hayyi lana min amrina rachada rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurata ayunin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 xaqa qadrihi wa miqdaari alazim subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuuna wa salaamun ala almursalina walhamdulillahi rabbil alamin amin allahuma yow yàlla jaam bi woo yàlla ci baatu allahuma xam nga allahu nga fa ñu dolli ca miim allahumma miim boobu lan la mbóot la ci ñaan yi mbóot la ci tuddin yi ndax yàlla la bu ñu wax ne yaa allahu wala allahu la ñu indi tàmbali miimu muhammadu ga lu mu ci mën a doon rek lu rëy la bu ko jaam waxee péyub yàlla bi tabeek yàlla gi lépp ubbeekul na ko nga ne ko yow yàlla mii antal ëwalu yow rekk yaay aji njëkk ak njëkk fu ñu ko waxee yow rek la fa laysa qablaka shay'un dara jiituwu la wa antal aaxiru bu ñu waxee mujj yow rek yaa fa mujj yow rek yaay mujj fa laysa baadaka shay'un sa gannaaw dara nekk fa wa anta zahir bu ñu waxee feeñ ak feeñ yow la fa laysa fawqaka shay'un dara tiimu la wa anta al baatinu bu ñu waxee ak nëbbu ak nëbbu yow la fa laysa doonaka shay'un fa laysa doonaka shay'un lu dul yow nekkul kon yow mii nekk-nekk gii fakkun lanaa nekkal ñu yaa awalu yow mu njëkk mi nekkal ñu sa njëkk gi yaa yow mi mujj mi nekkal ñu ci sa mujj gi yaa zaahiru yow mu feeñ mi nekkal ñu ci sag feeñ gi yaa baatinu yow mu nëbb mi nekkal ñu ci sa nëbb gi nekkal ñu wëlli yan di ku méngoo sunu mbir lépp wa nasiran di ki ñuy dimbale ci sunu lépp anta yow mi ñu ñaan lii mawlaana yaay ki méngoo sunu mbir war ñu ko may yow lañ ko ñaan fa ni'ma baax na almawla ki méngoo sunu mbir te ñu ñaan ko ñaan gi wa ni'ma baax na annasiru dimbalekat bi ñu dimbalekoo di ko ñaan ñaan yi allahumma yow yàlla inna ñun de nasaluka ñu ngi lay ñaan te ñoo ngi lay ñaanee bi fatihiyatil fatihi ci ubbeeg ubbi gi lañ lay ñaanee ubbeeg ubbi gi mooy lan ndax mooy fatihatul kitab ubbeeg ubbeeg ubbi gi mooy lan ndax mooy yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam moom mi alfaatihi li ma wax ne xe wala boog ubbi gi mooy ak nubuwatu ba mu tëjee wilaayatu ubbi ci ubbee ndax mooy faatihatul faatihi loo ci wax baax na waaye lu mën a doon daal yow yàlla ubbi ci ubbeeg ubbi gi alfatxatta ma nga ubbee ñu ci ubbi gu matale wa bi xaatimiyatil xaatimi ci mottalik mottali gi ba tey itam lañ lay ñaanee nga may ñu li ñu lay ñaan mottali mottali gi ndax mooy yonent bi ci xaatim yetug wi eh, nubootu la wala mooy Cheikh Ahmad Tidiane ci xaatim la ñaan nañ la daal bi xaatim yetul xaatimi nga may ñu lan husnal xitaami mujj gu rafet yow lañ ñaan mujj gu rafet ak a baax mujj gu rafetay lépp yow lañ ko ñaan allahuma yow yàlla inna ñun nasaluka ñu ngi lay ñaan alxayral yiw kullahu léppam allahuma yow yàlla inna ñun nasaluka ñu ngi lay ñaan alxayra yiw kullahu léppam aajilahu la ca teew wa aajilahu ak la cay ñëw ma alim naa minhu lañ ca xam wa ma lam naalam ak lañ ca xamul lépp lañ la ñaan wa naudu bika mooy ñu ngi muslu te ci yow rek lañuy ñuy musloo mina shari ci luy ay kullihi léppam aajilihi la ca teew wa aajilihi ak la cay ñëwam maa lim naa minhu lañ ca xam wa naalam ak lañ ca xamul lépp liñ la muslu bu ñu waxee naawzu bika nag ñu ngi muslu bika ci yow amul lenn luy nekk lu dul ci yàlla la nekkee mu ngi mel ni nga bëgg a mucc ci xajub waaja bul dem di jéem a songo xaj ba ngir mucc ca moom jokkool ak borom xaj ba rek boo bëggee xaj bi bu mu la lor demal ci borom xaj bi rek lu mu xajam bi rek xaj ba def ko xaj lu mu soxor soxor bëgg a songe boroom xaj ba bu nee xaj bi dalal rek xaj ba dal seytaane nag mooy xajub yàlla kon ku bëgg a mucc ci seytaane bul sonn di jéem a songook xaj ba bul songoog seytaane ba munoo mucc ca moom dellul ci yàlla rek mu musal la ci seytaane ba ndax mooy xajub yàlla moo tax ñu ne ñoo ngi muslu bika ci yow yàlla di musloo nag ci yow mina seytaani wala mina shari ci lu mën a doon di ay allahuma yow yàlla inna nasaluka aljannata ñu ngi lay ñaan aljana wa ma qarraba ilayha ak lépp lu mën a doon di wax mbaa jëf bu ñuy jegeel ñu mën a dem ci lii may ajjana ñu ngi la koy ñaan min qawlin wa amalin moo xam wax la moo xam jëf la lu mën a doon lu ñuy jegeel rek àjjana ñu ngi la koy ñaan wa naudu bika min annaari wa ma qarraba ilayha min qawlin ma amalin ñu ngi lay ñaan it nga musal ñu ci lépp luy jegeel nit safara moo xam wax la moo xam jëf la allahuma yow yàlla inna nasaluka al afwa wal aafiyata wal muaafata daaima fi diini wa dunia wal axira ñoo ngi lay ñaan ak njiggal ñoo ngi lay ñaan jàmm ñoo ngi lay ñaan mën a am jàmmalanteeg suñu bopp ak nit ñi addaa ima mu nekk bu sax nag fi diini nekk diina wa dunyaa nekkal ñu sunu àddina wal axira nekkal ñu sunu alaxira al afwa mooy jéggale yow yaa ko moom yow yàlla yow lañ ko ñaan wal aafiyata jàmm yow lañ ko ñaan wal muaafaata mën a am jàmbalanteek mbooleem bindee fii yow rek ko mën a maye ñoo ngi lay ñaan ba ca sax nekkal sunu diina sunu àddina sunu àllaaxira allahuma yow yàlla inna nasaluka ridaaka ñu ngi lay ñaan sa ngërmande waridaa nabiyika di la ñaan sa ngërmandeeg yonent bi nga xam ne mooy sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam waridal ashiyaaqi di la ñaan it nga may ñu ngërmandeel sunu sëriñ si waridal waalidayni ak ngërmandeel ñaari way yi nga xam ne ñoo ngeen dégg ngërmande yim fa ñaan te waxoon na ba muy ñaan àjjana nee na lu ñuy jegal àjjana lépp nga may ñu ko kon yi muy limaat yépp ci liy may nit ci mu mën a dugg àjjana la bokk may ñu ngërmande yi ñu lay ñaan mooy xiir ñu ñu jëfee la nga xam ne ci la ñuy mën a amee ngërmandeel ñii ñu lay ñaan seen ngërmande lu rekk la nag allahuma yow yàlla ijal ma nuxibu fi ma tuxibu wa tarda yow yàlla may ñu defal ñu lépp luñ bëgg rek mu dëppook la nga xam ne yow moom nga bëgg te loola nga gërëm yàlla moo bëgg lépp lu mu bëggul du nekk waaye la yàlla bëgg te gërëm ko nag loolu la ñuy ñaan yàlla defal lépp lu luñ bëgg ñun ba war ko yootoo jot mu dëppoog la nga xam ne moom nga bëgg te moom nga gërëm lëm gërëm nag boo ko seetee rek mooy lu dëppoog li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekk ci xeetu wax ak xeetu jëf allahuma yow yàlla ijal defal fi ixtiyaarika ixtiyaarana wala tajal ila ilayka ittiraarana yow yàlla defal lépp loo xam ne ñoo ngi ko bëgg ba di ko tànn rek mu dëppoog la nga xam ne moom nga bëgg moom nga tànn jaam war caa nekk suñ demee ba lott fu ñu mën a amee xettaleku dem di fa wuti xettaleku rek na nekk ne yaw yàlla lay doon bul ñu xiir ñuy am xettaleku ci kenn ku dul ci yow yaa rabbana ya xaaliqa alawalimi xul baynana wa bayna kulli zalimi yow sunu borom bi nga xam ne yaa bind mbooleem lépp lu nekk yaa bind mbooleem awalim yi nekk ak lu mu mën a doon rek aalam la bët xam ngeen ne na bët di xoolee bokkul ak la nopp di déggee bokk nag la bakkan di xeeñtoo bokk nag bokk nag la làmmiñ di mose cafka ya bokkul ak la ca loxo ya bu ñu làmbee nu ñuy dajee kon cër bu mën a doon ci cëru doomu aadama rek alamu boppam la rawatina nag mbindeef mu mën a doon ci xeetu mbindeef yi alamu boppam la nit lim soxla woo dundee ka cay góor ak ka jigéen bokkuñu waaye lii di nit keeg lee di rab wa bokkuñu lii di nit kii lii di garab ga bokkul lii di suuf lee di asamaan bokkuñu lee di géej ya lee di lu ca nekk aalamu boppam la aalam yooyu nag yow yàlla rek yaay boroom aalam yi yow mi nga xam ne nag yaay borom aalam yépp hul baynana wa bayna kulli zalimi kay tooñ melokaanu tooñ ga nekk ca moom ba tax fu mu jëm mu ngay tooñe yow lay ñaan yow mi yore mboolem aalam yi nga dox suñu digganteek tooñkat yi ak kum mën a doon ak tur wuñ ko mën a tuddee la jokkatu guddi la di dugg ci kër yi dem ci boutique yi la dem ci barab yi dog nit ñi ci mbedd yi la lor yu métti yooyu ñoo ñuy def yow yàlla mi nga xam ne yaay borom awaalim yi doxal suñ diggante ak mbooleem ñooñu nga xam ne ñooy tooñkat yi ba Sénégal gii mbooleem lorekat yooyu seen kattan yi na nasax senegal am jàmm ñuñ senegal nekk ci jàmm ànd ak koom lu yaatu loo xam ne day daj mbooleem waa réew mi ba daj mbooleem fu jullit ñi nekk ci goxe àddina bi nekkal jullit ñépp yow yàlla kat yow lañ ko ñaan yow mi nga xam ne yaay borom awaalim yi hul baynana wa bayna kulli zalimi wajzi li kulli man ilayna ahsana wa jazina al jaza al yow yàlla wajzi li kulli man na ahsana képp koo xam ne mu ngiy def lu rafet jëm ci ñun rek lu mën a doon ci xeetu lu rafet mu koy def jëmale ko ci ñun wa jazi ana al jaza al ahsana fayanteel ak moom ci lu rafet loola muy def jëm ci ñun lu gën a rafet lu rafetam la fay ko ko kon ñaan la koo xam ne ku lay defal lu baax waxtu wu nekk yaa ngi koy ñaanal mu am lu ëpp la koy lam lay defal ci lu baax yow yàlla yow lañ ko ñaan nanguñu ko yaa rabbana yaa xaaliqa alawalimi xul baynana wa bayna kulli zalimi wajzi li kulli man ilayna axsana wa jaziana aljiza al axsana allahuma yow yàlla irfa an aljahda dàqal ñu lépp luy tiis dàqal ñu lépp luy balaa wal jooa ak xiif dàqal ñu xiif wal orya ak rafle dàqal ñu ko jamono ngi neex nag ba mel ni xiif amatul ba mel ni rafle amatul waaye ña xamoon lay démb xiif daan na sonal nit ñi rafle daan na nit ñi kon ñaan gi nangu na ba rafle sax xamatuñu ko xiif sax xamatuñu ko yal na ñaan gi di gën di nangu nag ci waxtu wu nekk aljahda mooy balaa yi musiba yi ak a bari woon ci jamono yi jiitu woon waaye tàlleeku mayu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi ko yàlla di wax ne wala wala al axiratu xayrun laka min al ola ak wala sawfa yutika rabbuka fa tarda yaatu na ba jàmm daj na fu nekk waaye yàlla na gën a daj fu nekk kon yow yàlla dindil ci ñun jahda balaa yi wal jua ak xiif yi wal orya ak rafle yi wax chif ana min al balaa maa laa chifu dindil ñu daal lépp loo xam ne balaa la tiis la naqar la jafe-jafe la dindil ñu ko ndax kenn mënu ko dindi ku dul yow allahuma yow yàlla farij an ummati sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yow yàlla wuññilal xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lépp luy seen jafe-jafe dàqal leen ko wuññil leen ko ngeen gis ñaare buñ yegsee ci ñaan gi baa mu waat ko ñetti yoon sax ndax xeetu yonent bi jullit ñëpp war di ñaan ñaanu gi yiw nekkal leen nga nekkoon nag maa ngi ñaanal xeet wi naa ko gën a yëgloo sama bopp nga baamtu ko ñetti yoon lu baax la rek ndax mbootum ñett da cey dugg rabbana yow sunu borom aatina jox ñu fi duniyaa ci àddina xasanatan lépp luy lu baax rek may ñu ko ci àddina wa fil axirati te àlaxira itam kat may ñu xasanatan lépp luy lu baax wa qina azaba naari yow yàlla yal na nga ñuy fegal mbugalu safara rabbana yow sunu borom laa tu aaxis naa ñuy jël inna si bu ñu fàttee ba def lu ñu warul def wala bu ñu fàttee ba bàyyi lu ñu waroon a def bu ñu jàppanteeg loola de jéggal ñu rek aw ax tax naa fu ñu juumee ba wax lu ñu warul wax itam yow xam nga lañ bëgg fu juumee ba def lu ñu warul def itam yow xam nga lañ bëgg xam nga la baax ci ñun loola rek lañ la ñaan nag ndax suñu melokaan fàtte njuumte moo ca nekk waaye bul ñu toppee sunu fàtte yi bul ñu toppee suñu njuumte yi rabbana yow sunu borom wala taxmil alayna isran bul ñuy yen benn jafe-jafe kama xamaltahu ala alladina min qablina ni nga ko yenee woon ñi ñu doon jiitu ci ay xeet ñuy am jafe-jafe ci seen dund ñun ñu ngi lay ñaan bul ñu teg benn jafe-jafe mooy jafe-jafe yi ma leen daan wax la jiitu ci jamono ak jafe-jafe bari woon na ko doon yenee ñi jiitu woon ñu ngi lay ñaan ñun nga teggil ñu ko bul ñu ko teg rabbana yow sunu borom wala tuhammilna ma la taqata lana bihi bul ñu yen mukk loo xam ne amuñ kàttanug mën ko yenu loo ñu teg rek àttanloo ñu ko ci suñu xol bëgg ñu ko ba ñu gërëm sa àtti ca noona bul ñu teg daal luñ àttanul ndax yaa ko mën a tegg ci ñun bul ñu ko teg waafu anna yow yàlla jéggal ñu waxfir lana baal ñu war a xam warhamna yërëm ñu anta mawlana yow mi ngi ko ñaan kat yaay sunu borom kon fansurna dimbale ñu alal qawmil kaafiriin kuy ñaan ñaanal mu yaatu lii ñuy ñaan yàlla ñoo ngi ñaan yàlla musal ci bépp jullit ak fu mën a nekk moo xam moo xam moo xam kum mën a doon la di jullit ci mboolem goxi àddina bi yéefar yiy jog di leen xeex yow yàlla dimbaleel jullit yi ñëpp ci yéefar yooyu nga xam ne ñooy tooñkat yi rabbana yow sunu borom laa tuziq qulubana bul di jengal sunuy xol baada iz hadaytana gannaaw boo ñu jubalee ba ñu yëg ne jub nañ ci jubug lislaam bul wëlbatee ci sunuy xol ñuy jubati feneen di ci leneen di melati neneen lu dul jub gi wahab lana may ñu yow yàlla may goo xam ne min la dunka ci yow rek lay jógee nga defal ñu ko mu nekk may goo xam ne rahmatan yërmande lay doon jóge ci yow innaka naka yow yàlla antal yow kat alwahaabu yaay mayekat bi ñuy ñaan yow rek la ñu ñaan may ñu ko rabbana yow sunu borom naa ñun de sami'na munaadiyan dégg nañu wootekat buy woote yu naadi mu ngay woote lil imaan yi ci gëm yàlla ne an aminu bi rabbikum gëm leen seen borom bañ déggee wooteem ba di yonent yàlla muhammad woote na nañ gëm sunu borom ah fa amanna ñun de gëm nañ ko kon de yow rabbana sunu borom faxfir lanaa jéggal ñu sunuy bàkkaar jéggal ñu zunubanaa suñuy bàkkaar wa kafir yi atina dàqal ñu suñuy bon wa tawaffanaa ma'al yi te boo demee ba jeexal suñuy dund ñu war a dee boole ñu ci ña nga xam ne ñooy ñu baax ña bu ñuy dee na nga leen di mayee sa may yu rëy ya fa nga leen di yóbbu ci sa yërmande foofa lañ la ñaan buñ demee ba suñ dund di jeex nga boole ñoog ñu baax ñooña rabbana yow suñu borom wa aatinaa jox ñu maa wa attanaa lépp loo xam ne dig nga ñu ko rek ala rusulika te digee ñu ko ci say ay yonent ndax yaa yebal yonent yi xamal leen lu ñu wootee njub ñu gëm kon la nga dig say yonent ne ku la topp ci sa yonent yi la ñu indi di nga leen may loola di ay may yow yàlla gëm nañ yonent yi la nga ñu dig ci sa yonent yi may ñu ko wala tuxsinaa yowmal qiyaamati bul ñu gicciloo yowmal qiyaam mooy bul ñu toroxal yowmal qiyaam képp ku yàlla jox ay mbugal yowmal qiyaam rek gicciloo na ko ku yàlla àtte yowmal qiyaam ca na jaam mel kooku gicciloo nañ ko mooy toroxal nañ ko mooy feeñalal na ko lu ñaaw foo xam ne gàcce bon na fa lool kon yow yàlla bul ñu gicciloo yowmal qiyaam bul ñu toroxal yowmal qiyaam innaka yow kat yaa ñu digg ne ku mel nii ak mel nii ci topp sa yonent yi doo ko wut la ko dig da ko ko jox yow lañ ko ñaan yow mi ngi ko ñaan kat innaka laa tuxliful miaada doo digee mukk di dellu gannaaw ci li nga digee loo digee rek bari le ba da koy joxe nu gën a bari sax na nga ko digee rabbana yow sunu borom ñun de xam nañu ne zalam naa anfusana tooñ nañ sunu bopp ci bakkaar yu bari tooñ nañ sunu bopp wa in lam taxfir lana boo ñu jéggalulee wa xam naa nga yërëm ñu lan nakoona na minal xaasirina xam nañ ne pertement rek ci lañuy mujj dañuy perte ko bu boobaa kon yow yàlla yow lañuy ñuy ñaan jéggal ñu rabbana yow sunu borom aatinaa jox ñu min la dunka rahmatan lu jóge fi yow lañ bëgg mu nekk yër rahmatan yërmande wa hayya lana min amrina rashadan defal ñu suñuy mbir ba nga xam ne jamono ba nekk suñuy mbir lépp ci njub rek lay tegu rabbana yow suñu borom hablana ji naa ñoo ngi lay ñaan nga mayee ñu ci suñuy ay jabar wa zuriyatina ak suñu ay doom qurata ayunin ñuy am ci ñoom xol bu sedd fu ñu nekk rek suñuy jabar ak suñuy doom nañ mel melokaan boo xam ne xol bu sedd rek la ñuy am ci ñoom mooy danañ tegu ci njub mooy danañ am jàmm mooy danañ am lépp luy teranga ba fu ñu leen gisee rek suñu xol bég ci ñoom yow yàlla may ñu lii ci suñuy jabar may ñu ko suñuy njaboot suñuy doom suñuy sët ila yawmil xiyaama waj'alna lil muttaqina imaaman képp ko mos a ragal yàlla ba ñu wax ne ragal na yàlla mboolem ñu ragal yàlla ñi may ñu ci ragal yàlla loo xam ne ñun ñoo cay doon njiitu képp ko mos a ragal yàlla allahuma yow yàlla igfir li xayina baal ñu baal képp kuy dund ci ñun wa mayitina képp ku faatu ci ñu ni deena baal ko wa kabirina ay mag ci ñun baal leen wa saxirina ay ndaw ci ñun baal leen wa zakarina ay góor ci ñun baal leen wa unsaana ay jigéen ci ñun baal leen wa hurrina ay góor ci ñun ak ay jaam ci ñun ñépp baal leen wa xaadirina ñi teew ci ñun ci mbooloo mii baal leen wa gaaibina ak ñi bokk ci ñun ñu àndandoor bëggante àndoo ci yoonu njub bi waaye nekkuñ fi sori nañu ñépp yow yàlla baal leen wa na ñi nga xam ne ñooy topp yàlla di def lu baax li dëppoog li yàlla gërëm ci ñun baal leen wa asina ñi ci dëng bay moyit baal leen amin yow yàlla mi ñaan yow leen ñaan yaay aji maye ji amin nangul ñu allahuma salli ala sayidina muhammadin alfatihi lima uxliqa walxaatimi lima sabaq nasir alxaq bilxaq والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها إياه صلى الله عليه وسلم اللهم صل على